تركت ما كان لي bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru màgg wi nga xam ne mooy weeru koor di yàlla mu may nu matal ko te liñ ci jot a weesu tamit moom mu nangu ko di am mbégte itam sant yàlla bu baaxit di ñëwaat daje fii ak suñu xaadim ñoom ñii fi nekk jóge ci Italie te nekkal fa yoon wi nekkal fa sëñ Touba ñuy def bu jamono ji jege ñu am bis yoo xam ne mooy le 8 juin bi nga xam ne proclamation bu ñu joxoon sëñ Moutada te ñoom mu bàyyee leen ko ñu di ko te moom mu ñu di ko màggal ngir bésu sëñ Touba la. ñu ngi nuyu mboolem ña fa nekk tàmbalee ko ci sëñ Fallou Mbacké euh, mi nga xam ne moo nekk foofa te euh, euh, ngeen jiital ko ci liggéey ba ci wàllu yëngutu ba itam ngeen ànd ci ak Modou Mbow ak ñam ko seqal kon ñi ngi nuyu sëñ Fallou bu baax di nuyu tamit di ci baal bàyyi xelit ñi nga xam ne ñoo jiite fédération bi sëñ Moubarak Lo mi nga xam ne moo jiite fédération bi nga xam ne yéen ñëpp yéen a ko seq bëgguñu sax di tudd ay tur waaye ginnaaw moo jiite fédération bi ak ku mel ne sëñ Moussa Dieng na sëñ euh, ñooñu ñëpp di ngeen bokk liggéey bi ñooñu tamit ñu ngi leen di bàyyi xel mu daan def bu jegee nag ñu waxtaan ñu soñ ñu ñu ñu fàttali ko. Euh, xam ngeen ne at yii weesu sax yàlla def na moom defuñu ko nañ ko daan defee ndax li mu tombeel muy mbas mi amoon te yàlla na ko fi yàlla jële daan ci itam def bés boo xam ne dañ cey ñaan ngir sëñ Mourtada loolu it ñu ñu juboo woon ca ndax xam ngeen ne euh, man maa ñaanoon rek mbokk yi ak seen xërti ne sëñ Mourtala dafa am loo xam ne man lu may sax di leeral nam demee waaye ci moom laa jëlee ñu bañ ko wutal bis boo xam ne dañ ko koy jagaleel te loolu yi fekk na sax ñu itam ñu gis ne lool mën naa ñàkk ndax bis yépp ku ne xam na ne yéene nit ñi moom lu bokk ci sëñ Tuubaa ak ku mën di doon rek seen yéene mooy waxtu wu ñu nekkal la waaye nag dafay barab boo xam ne comme da ngeen nekk ci biti te mu féete te mu am fu ngeen jaar ak moom ci lépp mu yéene woon ci yéen yéene boo xam ne mooy ngeen nekkal fa lislaam te mooy nekkal fa sëñ Touba yéene ngeen defe ko noona ba tax na jafe-jafe yi am yépp ci àdduna bi ak fii ñu toll woon ci mbas mi loolu lépp téewul yéen yéen a nga nekk ca loola rek xam nañ ne daaw ak daaw jéeg yépp jafe na lool waaye teewul lu mën a mel rek yéen ngay bàyyi xel ci la nga xam ne mooy dégg mooy taxawal fa diine taxawal fa teg sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom ngeen fa nekkal moo tax ñu ne kon loolu it dara nekku ci mu nekk ak ñaan rek te loolu moom kon yow tam yàlla na leen ci yàlla fay seen yéene te nangu ko ndax fële nag ak ñaan dafa dul doy ndax e, bu doon doy yonent bi sallallahu kenn du ko ñaanal te sallallahu alayhi ak ñaan rek la te egg nañ sax ci buñ ko tuddee ku ko deful ñu xaw la caa menace kon mu mel ne kon yëf yi rëy na te ak ñaan rek la kon mbir mi dafa mel ne yàlla la ne tuutiwul te yàlla rek moo ko gérer kon nag bu dee ñu baax ñooñu ku toll na yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmad keneen ko comme ngeen di ko te ñaan dafa am solo kon loolu moom mëne su teg lu dul ngeen defe ko na nga xam ne rek mooy buntu ñaan mu bañ a nekk ab xew-xew boo xam ne du génn euh, rëddu ñaan rek ñaanal ko ngir loolu doy du ko du doy te dañ dañ ko soxla kon nag yàlla na leen ci yàlla fay te nangu ko euh, li ci desit mooy bisiw le le 8 juin bi nga xam ne ni ngeen ko xamee waa euh, proclamation la boo ne bés la bu ñu def bésu sëñ Touba te bésu sëñ tubaa bu ko dee wax yéen a yéen ko fa nekkal xëy na moo ko moo ko moo ko sabablu waaye yéen tax nun ñi dafa ñëwit yéen a yéen yéen tax na du fi ñëw ndax bés ba sëñ Touba la lislaam la kon ku ne mën nga caa jariñoo waaye yéen ñi nga xam ne yéen a tax nag mun mu am fa kon seen bës la te ngeen téye ko nag xamee ko noonu yi tamit yéen it nag ndax lépp lu mu leen fekk ak bu bu fekkoonte ne jafe-jafe rek la muy seen wàllu uh, am-am wala muy seen wàllu uh, doole bu doon loolu rek kon defe naa ne du egg fii waaye da ngeen jël seen xol ak seen pas-pas. ak seen jafe-jafe lu mu mën di doon ngeen mu jar li gën a nekk ci seen kanam ba dootul leen xool lu jëm ci loolu kon xam ngeen ne kon loola lu ko tax a jóg rek mooy mooy mooy lislaam euh, bis bi it niñ ko waxee woon rek dama ci dul mën a soreegun ndax wax naa ko léegi sëñ xaadim bi nga ma waxee ne ma jot ngeen cee tàmbali di ci yëngutu ba wut ay barab euh, loolu moom mooy seen naka jëkk defe naa daawit li jafe-jafe bi di am fexe woon ngeen ba bës bi ngeen ngeen jëmmal ko euh, nu itam euh, sunu warteef la ñëw wettali leen ca wax naa leen ko ne leen lépp loo xam ne sëñ Tuubaa ñépp a ko bokk lii nag bu ko sëñ Murtala wutee yéen ngeen farewoo ko nun ñu ñëw di leen cee ji di leen cee di ko jëmmal kon ñun amuñu sañ-sañu di ca di ca di ca di ca di ca di ca di ca di ca di ca am luñ cay àndal ak luñ cay dindi ak luñ cay def lu dul fexe rek mu mu yokk gën a dëgër li ci nekk rek mooy fii ñu toll ci jamono bi xëy na buñ demee ba ci weer wee kanam danañ gën a mën a xam ba taxawaay bi naka la ci demee ndax xam ngeen yi tamit ñun fuñ ciy dem état bi da ci am solo lool ndax ñoom xëy na am na lu nekk ci kaw loo xam ne yéen xam ngeen ko waaye am na lu nekk ci biir loo xam ne tamit du ngeen ko xam ndax ñoom dafa dafa tuutiwul ci ñoom ñu itam nag suñu sañoon ginnaaw yéen a nga fa bëgguñu dara loo xam ne ñoom dafa nekk ci seeni doxiin ñu di leen ko muy aw muy am ab lënt ci seen diggante ak ñoom loolu moo tax may itam bala maa cee lu ñu ciy def rek day fekk ñu déggoo ci dañ daan dem fii xool ak ambassadeur bi waxtaan ak moom ci waxtaan ak gouvernement Sénégal bi tamit lépp dañ ko daan def bala ñu ci bala ñu buñ ci jubloo ci waajtaay loolu nag moo taxoon ñun suñu wàllu bopp moom ñu ñu bëgg a muñandiku ba ba matal loolu waaye ñun lu ñuy gàntal ak lu ñuy lu ñuy lu ñuy bañ ak lu ñu kii ñemewuñ ko ndax liggéey la boo xam ne liggéey suñ Tuubaa te ni ngeen ci bëgg jariñoo lañ ci bëgg jariñoo ndax mbir mi liggéey la du loo xam ne nit a ko moom loolu moom amuñu ci benn benn benn jafe-jafe kon bu soobee yàlla danañ ci danañ ci gën a gën a gën a gën a gën a gën gën koo yaatal gën a seetlu nuñ koy war a nuñ koy war a doxale bëggoon naa xool ak ambassadeur bi gisanteeg moom ba noppi gouvernement Sénégal tamit ñu xoolante gisanteeg ñoom fekk ñoom itam xam nañ ne fële lañ fay lañ fa doon euh, bañ a defagun lépp juboon nañ ci léegi génne maanaam feeñ wax nañ ne juboon nañ ci maanaam lépp mën nañ ko def léegi ci lu dul yëkkati nañ lépp lu luñ ci tëraloon ci loo xam ne dañ ko ci daan def xam ku ne xam ne ne léegi lu bari wàññeeku ne wax ngeen ma ko bu baax waaye ci wàllu état yi tamit nag dafa am doxaliin boo xam ne foog ñu ñu leerlu ko ba nga xam ne moo ci am solo waaye ñun suñu wàllu bopp moom amuñu ci benn benn benn jafe la nga xam ne nag bu demee ba yàlla def nu war koo ànd ak yéen it la ca des mooy nu waxtaanewaat na nga xam ne moom lañ koy tëralee ba nga xam ne dina gën a am solo waaye jëmmi bés bi moom kenn xalaatul lu dul saa bu jotee rek ñu ñu ñu ñu màggal ko ndax bésu diine la bësu lislaam la bésu sëñ Tuuba te yéen ngeen jël seen doole ak seen lépp ak seen muñ ak lu metti métti na ca kooku moom seen bés la amuñu ci lenn luñ ci wax lu dul leen ci sant di leen ci ñaanal xam naa ne ak dogu rek moo tax ngeen ne ca waaye ku xam fi jamono bi toll woon ak foofu na meloon ba noppi yéen seen xel mësul jóg ci dëndul ko kooku eh, li ko tax mooy ak dogu rek la dogu googu nag mooy diine euh, ndax mooy ànd ak ngëm euh, damay wax ne euh, li ñuy tuddee alance moom nga xam ne mooy mooy mooy tuddee moom la ñuy waxee ci nasaraan détermination nga xam ne yàlla daf ko réyal loolu ndax dafa wax ci alxuraan ne moom wa naa ahidnaa ilaa aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azman pacte bi mu defoon ak aadama ba mu ko yóbboo àjjana mooy bul laal lii ma la laaloo mais ba mu ko aadama dindee loola daf nekk aadama mu amul détermination kon maanaam baat la boo xam ne lépp lu nit di am jikko ju baax ak jikko ju bon mi ngi ci baat mu boobu kon dafa mel ne asmu boobu aadama yàlla di ko ca wax ne ko amoo ko woon amoon naa ak pacte boo xam ne respecté woo ko ndax amulu ak dogu kon baat boobu dafa xóot xóotaay boo xam ne su naa jàpp ne lépp lu nekk ci doomu aadama ci lu loo xam ne lu lu am solo la ci lay jóge lépp lu ñàkk solo yi ci loolu lay jóge moo tax lu yaatu la loo xam ne loolu lañ ñu baax sëñ Tuubaa ci loolu la amee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla di ko wax ne ko fas virkament sabadu ulul azmi bi dañuy wax ne ulul azmi ñeent rek la wante yonent bi sallallahu alayhi yàlla ne ko defal na ñoom kon yëfi yombul lépp lu jik lu nit di ëmb ci jikko ci diine ci ngëm-ngëm ci pas-pas ci jom ci ak xam sa bopp lépp dafa dugg ci baat boobu loolu tamit moo leen bàyyi foofu moo tax ngeen te lu metti metti yéen ngeen xool loolu te loolu nag mooy nit ndax ngëm ci la ci biir loolu la dugg te mooy tax nit ki mën a am fu jëm am fu mu tàmbalee am fu mu yem kon nag yéen tam yàlla leen yàlla sàmm ba tax na kon bu soobee yàlla ñu ngi leen ci soññ bés bi defe naa ne ñaat ñetti bés la woon ci Italie mooy Rimini defe naa ne la douze la woon boo xam ne moom tam amoon na bés bu mel noonu fële ca Cagliari ci ci sëñ Moubarak ñoom ak sëñ Abdou Ndiaye ñoom defe naa ne amoon na la vingt deux xaw ma la vingt ñetti bis yooyu la état Italie officialisé maanaam bis yooyu nga xam ne bésu sëñ Touba la moom nañ koy bu yàlla defee ñu ñoom ñu ñu lépp jeex na ci ci donte sax ñu ngi koy jëfee waaye ñoom ñu waxal ko seen bopp wala ak lu mën a xew wala ñuy ñëw wala ak lu mën a xew rek bés yooyu moom bés la boo xam ne kenn waru koo waru ko waru koo teg ci suuf ndax bés la boo xam ne nun moomunu ko lislaam ak moom te lislaam sëñ Touba la ko jox te sëñ Touba bu ko joxee jullit yëpp la ko jox kon dafa mel ne bés la boo xam ne jullit ya nekk foofu yëpp ak yi nekk fii ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko seq waaw kon daal defe naa ne li ci am solo rek mooy ngeen euh, taxawaay bi ngeen di taxaw mm, ngeen gën ko dëgëral ñu itam noo ngi ci seen wet ak fu ngeen ci mën a nekkit noo ngi ci seen wet fas yéene ànd ak yéen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci loo xam ne rek moom yéen a yéen a ko fa nekk te nun nu war nu ne nu ngeen xam ne yéenay liggéey liggéey ba ñun ñu nekk ci seen wet te léeg-léeg ngeen feeñal nu ca feeñal boo xam ne day mel na sax nu na te fekk nag yéen a yëngutu waaye nu it nag nag cër ba ma leen wax ne ñun moom lañ ca na jëlee sunu responsabilité mooy euh, bu fekkee nit dafa nekk ci aw yoon di ca dox te xëy na yow ñoom ñoo ànd lañuy xool mooy yoon wa àgg fañ bëgg jëm la yow la nga ca man mooy di xool yoon wa rek boo gisee am pax nga gaaw suul ko bu gisee aw xeer wuñ ca teg nga gaaw dindi ko boo gisee ak fiir guñ ca defit nga gaaw dem raxal ko lool daal def naa mooy sunu rôle ci liggéey bi te loolu nag am na ci solo nag ndax ndax yéen da ngeen am fu ngeen jëm yoo xam ne xool leen sax dara te rax yeeg pax yeeg ak xeer yeeg lu nekk ngi ci yoon wi te yéen amuloon soxla ci loolu da ngeen a am fu ngeen xool di fa jëm rek kon ñun def naa lu ñàkk-ñàkk solo nu itam nag di xool yooyu di ko àndal la ngeen ñëw wala ñu leen pax mi tegg leen ko lool moom mënu ko ñàkk def kon ñun tamit loolu la kon nu ngeen ñaanal ñu itam ba loolu buñ ca rax leneen waaw buñ ca rax leneen dem bokk ca pax ya ñay gasi pax wala xeeroo ñu gis ko bañ leen wax ne aw xeer nga ci yoon wi loolu lépp ñu mucc ci loolu waaye yéen yéen dox yéen dem yéen a jëm fa nga xam ne moo tax Islam yi jóg mooy taxawal fa lislaam rafetal ko fa ba kenn du fa yabe lislaam ci nun ci ci sëñ tuuba ci diineen ndax lislaam am na ñu te nañ ko yebee ci nit rek lañ ko yebee ndax nit la yàlla def diine ci moom kon am na doxin waxoon bu ko doxee ci turu diine te wut bokkut ak la diine doxee kon nit mën naa yeb diine te fekk yebul diine sax nit ka la yeb yéen nag yàlla dimbali leneen ba kenn yebewul yéen foofu kon nag yàlla leen yàlla sàmm yéen tam hmm, kon daal loolu lañ ci mën a wax li ci des nag nu waxtaane ko ci suñ biir luñ ci mën a def rek ñu mën koo def bu soobee yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci réew ma mboolem ku fa nekk ci daayira yi nag daayira kilifay daayira yépp ñu ngi leen di nuyu ak kër dëkk yépp nag ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal te yàlla defal leen jàmm soo xam na ne seen metti na jafe-jafe yi bari na fa li ngeen liggéey ba amatul solo am am ba amul solo waaye yéen loolu lépp toppatoowu leen ko li ngeen toppatoo mooy seen ëllëg te loolu nag moo am solo kon nag la tax ngeen bàyyi seen lépp di xool ëllëg yàlla na leen yàlla fajal aajo tey tey ak ëllëg yépp ndax moo ko yor moo ko yor moom waaw te mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax kuy xool ëllëg a ah, tax tey lu bare bare bare bari xool tey da leen yitteel kon defe naa ne ki tey ëllëg moom mu boole la ca tey moom jëfewu ko kon yàlla ko yàlla def bu soobee yàlla li ci des danañ ko waxtaanee eh, bala ngeen nuñ nuñ ko nu mu war nu mu mën a nekke nu mu gën a rafete rek ak nu mu gën a yelloo rek bu soobee yàlla noo ngi ci seen wet parce que ko yéen ànd ak yéen jërë ngeen